dali nag jàmm ñu ànd xëy yër kaa ñu xëyantoo yéenekaay gi di réew mi ko di caa xëy di ñu xibaar naan ñu Sitor Ndour mi nga xam ne dañu ko tuumaal lu jëm ci wàllum viol niki démb la ñu ko waroon a attee ci chambre criminelle bu Ndakaaru waaye nag dañu ko mujj dàq ba fukki fan juróom ci weeru mars yu ñu dëg ma la Sitor Ndour démb ca tribunal ba wax na jafe yi nga xam ne moom lay dund ca kaso ba daat nay wax ne dafa feebar avocat bi di Maître El Hadji Diouf démb moom tim yëkkati na ay kàddu nee na Sitor Ndour dañu ko daal di complot jamono ji ma ngi ci ay jafe-jafe te nag li nga xam ne moom la xale bu jigéen bi tuumaal Sitor Ndour amul lenn loo xam ne dëgg la ci maanaam lépp ay kàcc la loolee kàddu yu maître El Hadji Diouf la niki démb dafa wax ba xol bi mujj jeex moom maître mu daal di gëmm ba di di jooy yéen kaay gi di bés bi xëy di ñu xibaar naan ñu Marème Faye Sall lan la wuti woon ci Idrissa Seck loolee mooy laaj bi ndax journal bi nee na njiitu réew mi jabaram demoon na seeti Idrissa Seck yéen kaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa Moussa Taye mi nga xam ne mooy conseiller politique bu Khalifa Ababacar Sall daat nay wax ne Macky Sall jamono ji ab tournée tàggatoo moom la waroon a def te nag jamono ji li muy def mooy ab campagne déguisée waaye nag na ko leer ne 2024 neex ko ak mu ñàkk ko neex maanaam dina abale ci réew mi journal bi di Vox Populi nee defet bi nga xam ne Macky Sall ak Bokk Yaakaar am nañu ko ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu génn sa diwaanu Sédhiou ba léegi Macky Sall munu koo wanaasoo ndax Macky Sall daat na yàq musiba ak mbelengaan responsable yi nga xam ne ñoo dëkku Sédhiou ci nag ñàkk gi nga xam ne ñàkk nañu ko élection législative yi nga xam ne moom la ñu weesoo ndax Macky Sall nee na leen Sédhiou quinze communes la te quatorze communes yëpp maanaam maire ko yore lan moo tax ngeen mën a ñàkk a kaay gi de naan ñu liggéeykat yi nekk ci hôpital Mame Abdou Ba ca Tivaouane jamono ji mer nañu ba maara détaale niki démb doon nañu amal toogaanu na ndax ñoom dañoo njort ne am na lu toll ci soixante yoo xam ne dañu ko daal di détourné maanaam dañu koo luubal fi nga xam ne mooy hôpital Mame Abdou loolee la liggéeykat yi bëgg mu daal di leer naññi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Pape Alé Niang moom tim dafa mer ba maara détaale ndax nee na ji dafa daal di feebara war a dem ci diwaanu France ngir nag daal di faju ñi nga xam ne ñoo yor wàllum yoon ci réew mi lànk ba tëdd sa naaj wa bañ koo jox li nga xam

information yi nga xam ne joxe nañ ko saa yéen kaay gi di libération xëy di ñu xibaar naan ñu mbir a ngi nii soo moytuwulee coow lu rëy dina ko indiwaat ci réew mi mbiri Ousmane Sonko ak Adji Sarr ba léegi pënd bi wureegu la ndax homme d'affaires bii di door Gueye ak ku ñuy wax Abdou Nguera mi nga xam ne mooy wax ne mooy magu Adji Sarr ak Sidi Ahmed Mbaye dañu leen a tudd ci ak njombe giraawaali goo xam ne musiba ma bukkumba la journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy waa Seneweb doon nañu wax ne Sidi Mohamed daal di nax benn kilifa na ko yor naa vidéo Adji Sarr ak Ousmane Sonko kilifa googee jox ko lu toll ci fukk ay millions libération nee na nag mbir mi maa leen koy leeralal ndax dafa am benn waay bu tudd Abdou Nguer boo xam ne moom la ñuy wax ne moom mooy magu Adji Sarr moom moomee nag la ñu jox xaalis ba Abdou bi ñu ko joxee xaalis bi Sidi Ahmed Mbaye dana ko man yor naa clé USB boo xam ne vidéo Adji Sarr Ousmane Sonko moo ci nekk Sidi Ahmed Mbaye jox ko clé USB bi Abdou daal di koy jox xaalis bi waaye moom Abdou Nguer mu jël clé USB bi jàpp na nag moo ray golo gi ba mu demee ba këram dugal ko ci ordinateur am maanaam vidéo bi dara nekku ca xaalis boobee ñuy wax naka Doro Gueye moo ko jël jox ko Abdou Nguer Abdou Nguer jël ko jox ko Sidi Ahmed Mbaye sii Sidi Ahmed Mbaye jël kele ba jox ko Abdou Nguer Abdou Nguer xool ko gisu ci lenn Abdou Nguer moomee nag moo jël mbir mi yóbbu ko fa mbaxana doone benn waaye nag mbir mi bëri na ay lees wuxul yoo xam ne ma ngi ci te Doro Gueye mi jamono ji bëri na loo xam ne ñoo ngi ko ci tudd moom Doro Gueye xaritu géwal yi ak kat yi section de recherche jamono ji ñoom ubbi nañu ci enquête journal bi di bés bi ñëw na ci mars 2021 jamonoy Ousmane Sonko ak Adji Sarr ak manifestation yi nga xam ne moo fi amoon ba lu toll ci fukk ak ñeent ñàkk ci seen bakkan te ba léegi kenn lijjantiw ko gouvernement bi waxoon nañu fi ab commission commission mbir mi waaye ba léegi furaas dali xëdde bi di bés bi nee ñetti fan ci weeru mars atum 2021 la ñu tegoon Ousmane loxo ci lu jëm ci trouble à l'ordre public Sénégal dugg ci girawal yi manifestation ne tar na ba maara ba juróom-ñetti fan ci weeru mars yéen kaay gi de Le Quotidien yor yara ñu xëy fekk fa Ali Sega Camara moom nag nee na élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu ma la maanaam politiquement jafe-jafe maanaam problème ak ñi nga xam ne ñooy waa Casamance yéen i kaay gi de Les Échos ñu xibaar naan ñu Karim Wade doomu Abdoulaye Wade bi lan lay waajal ak ndax élection présidentielle 2024 yi ndax Karim Wade dina ci bokk loolee ab laaj la journal bi nee na en tout cas li am ba des la lu jëm ci wàllum juntukaay Karim Wade jamono ji ma ngi ci ndax yónnee na ay oto yu bare bari yoo xam ne doxaal la ñu jógee jamono ji ñoo ngi ci porum Dakar i kaay xam ne moo war a dox diggante Sa Thiès ak Reug Reug combat wax ne ma jàppee Reug jàpp rëg-rëg du bëree te man du ma moroomam rëg-rëg ci biir journal bi nee moo man Sa Thiès moo ko dàq bëre moo ko ëpp doole dàq bëre